jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokk internet yu 5M TV senegal dal leen jàmm ci seen chaîne bi xibaar yi dañuy àddu eh, ci nag kàddu yi nga xam ne ñi fare ak Jomaay Bassirou Mile def nañu ko ñoom nag ñu xamle ni kon campagne bi tey jile danañ ko tàmbali ginnaaw injustice bi nga xam ni kon ñu ngi koy dund ñu ni loolee duñ ko nangu benn yoon foofee ca cimetière Saint-Lazare kon lañuy tàmbalee mbir mi. ñoom ñi nga xam ne nag kon ñoo nga bootu rekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mili Bassirou Diomaye Faye ci nag coalition bi la daal di bokk mu ni Diomaye président loole mooy daal di am njiitu réew mi kon def na lu ko neex ginnaaw bi mu ajandee kay élection présidentielle yi mu ni kon loole anticonstitutionnel dëgg la te tey ji ak lu mu mën ci doon moom mi fare eh, ci nag bile coalition ma ngay xam ne ni kon taxaw nañu temb ngir amal seen caravane pacifique jëm ci wàllu démocratie kon tey jilee bu ñetti waxtu jotee ci nag ngoon lay daal di doon tax na ma ngay woo kon citoyen yépp ñu ñëw booloo rek taxaw daal di yuuxoo Ousmane sonk mooy Jomaay Jomaay nag mooy cinquième président nag bu Sénégal mu ni kon nag am na solo bu baax njiitu réew mi xam ni kon eh, ginnaaw dogal na ko ngir dàqandi élection yi loolee fi mu nekk nii kujje gi itam taxaw nañu ak rek société civile bi ngir rek daal di xool situation politique gu Sénégal ni jamono ji kon jaxasoo na loolu.